waaw panel bi ñëpp bëgg mag Sall gis nga li may wax nii damay wéet sama nekk man kese di ko wax sama jëkkër bu fi toogee duma ko wax dañuy rayante ndax Macky waaw mais xam naa li ñuy wax dëgg la c'est un dossier vide waaw c'est que ñoom seen objectif mooy na na na na na daanu affaire bi loolu rek la ah mais Sonko na daanu nag nañ ko wutee beneen façon. bu dee caay-caay rek la mënoon nañ def leneen mais pas affaire yu jigéen affaire yu jigéen Sénégal moom waxi kasaw kasaw la fa parce que fowukaay lañ leen jàppee ñu baal ma nag jigéen la mais looloo fa nekk waaw kaaw euh, viol yi ñu étouffé Sénégal ak euh, yàq biir yeeg merci yi ñu étouffé Sénégal Cheikh Yérim Seck ngi nii dara la média bi di rey nit ñeeg ay wax Cheikh fa deful ah moo tax am na loo xam ne dafa amul sens am sonko sonko sonko sonko ci lan ànd naag jigéen séq nañu séquñu ay wax dafay yanu maanaa waay sonko mu bëgg a dox doxam kenn mënu ko koo tere aji saar mu dëng dëngam kenn mënu si dara nañ ko nañ ko épinglé ci leneen lan la leen wax leneen ne man samay loxo daa set wecc ku ma mës lekkal san franc bi may bi may servir le Sénégal ñëwal wax ko ñoom wax yooyu lañu waroon waroon fexe nuñ ko effacé waaye naan dañ koy dugal ci pax kii de buñ ko dugalee ci pax dinañ ko bëgg génne mu tële. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum mouvement Marie Macky Sow maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar ziar ko euh, di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loo ngañ diir mu nuyul ma waa panel bi yëpp. di jëlaat nuyoo jigéen ñi di ko teg ci loxo euh, Marème Mbodj depuis Leeds mu nuyu ñu jigéen ñi yëpp ah di wax ne vraiment image yi moom image yu catastrophique la <coughs> ci opposition waaw parce que dara xewul nit ñi génn def mobilisation bi tey na xel tey na xel lool lool lool bu doon ci diaspora bi waaw mais biir Sénégal la xewe ndaxte <coughs> diaspora bi moom Sonko nangu na ko moom moom teg na ci loxoom te kenn mënu ko récupérer man nag dama am gàcce parce que fu ma doon toog dama naan Sonko du mus a gouverner Sénégal wante lii ma gis doy na waar te dama naan lii lépp li ko indi mooy suñu ñàkk liggéey su ñàkk liggéey ndaxte munoo di xeexal nit di xeex ak nit foo toog nga koy tudd danga koy may bës Sonko dafa am bës te parti bi ñoom ñoo ko may bës te parti APR kenn liggéeyu si ñëpp a toog ndax lan ñëpp mer ñëpp lañ trahir ñëpp lañ trahir ñiñ trahirul nag ñooñ tedd nañ ba pare ñu ngi seeni bureau takk seeni cravate diggam loo mag yi yow yow yaa fi nekk ñu koy nax gis nga politique kenn du ci naagu saa yoo bàyyee liggéey nga daanu politique dangay liggéey ba au dernier moment mais parti bi kenn liggéeyu si ñëpp a ngi toog croiser les bras ndax lan booy liggéeyal nit te xamul ndax yaa ngi liggéey faalewu la kontewu la dangay toog Macky nag wax dëgg yàlla bu dee liggéey kese liggéey na wante fi mu war yokke loxoom foofu la toog seetaan. awa ça def aw dañ ko wax ba sonn te taxul Macky gestu kenn taxul mu déglu kenn amul base waaw su jëlee por autonome jox ko ko koy foowee ñu nii mu jël santé bi politiquer nii euh, élevage agriculture. lum ci mënti def du feeñ ndax fa ñu war a yóbbu engrais duñ ko fa yóbbu fa ñu war a yóbbu matériel duñ ko fa war a yóbbu sénégalais moo moo yor jikko bu salte ñu baal ma ci ñi ma ko sañ wax léegi am-am la ñu jiital nu ma mën a def ba am nu ma mën a def ba jekk naa profito tant que mentalité boobu mi ngi fa que ça soit Macky Sall que ça soit Sonko ak keneen ku mu mënti doon ci nii rek la ñuy dund. suñuy valeur lañu perte waaw defatuñu lu baax li ñuy nekkee daal mooy naa avancer rek naa jekk waaw looloo fa am ne nañ ko wax mais bëgg jël bëgg falu bëgg nguur ak bëgg sàcc raw ba tax la nga ni da ngay benn leader politique bëgg ko teg ci ay fenaki tappale tamit du dem Sonko kenn weddiwul moo def moo dem moo dugg moo génn mais ñoom ñoo ko topp ñoom ñoo topp Sonko tëgg seen li ñu tëgg ah ba pare ils def ay erreurs surtout toute la ligne ah aji sa rapport médical dafa wone ni 48 heures kenn laalu ko kenn jegewu ko sequ la góor ci ñaari fan yooyu noonu ñu wax ni Sonko dafa seq ak moom xëy na seq Sonko daan na dajeeg moom nit booy def da ngay def lu set et benn ñaari nit waruñu tenir euh, tout temps peuple en haleine arrêté dund nit ñi am Sonko indi Adji Sarr ba kañ ah lu tax du ñu génn wax li ñu def ci Sénégal lu tax du ñu génn wax li ñu électrifié lu tax ñu génn wax case de santé yeeg hôpital yiñ ñu tabax am Sonko indi Sonko dina wuyu bu wuyu jiwul dinañ ko jëli dinañ ko def li par force dinañ. mais yooyu moo fi war a jóg nañu génn wax li ñuy liggéey ci Sénégal ak faay yi ñuy def nuñ koy retrape awa lii ngay wax ñun dañ ko yàgg wax dañoo wax ba sonn kenn faale yàgg nañu wax ni Macky Sall ñi koy liggéeyal faalewu leen xamul leen lijjantiwu leen yaa ma neex ak nit ku bees ak ronqi ay militant wu jàmbur loolu ku ci dëkk fii rek ngay mujjee. Adja Awa Sarr man la Marème Mbodj man maa dugal vidéo yi dañuy débat ñuy wane ay preuve pour wane ni kii ñoom ñoo ko jël xëccal ko mbooloo may ko doole may ko fit ba mu taxaw preuve lañ ko fi jubloo mais jubloo wuñ ci pour dara de toute façon buñ ko dugalee nit ñi gis nañ ko buñ ko dugalu nit ñi gis nañ ko dugaluñ ko pour wax ko lu ko neex dugaluñ ko pour parce que dañoo ànd ak moom wala dugaluñ ko parce que daf ñu neex dañuy wone dañuy débat dañuy waxtaan te waxtaan wax dëgg def siy neex dama man maa ko dugal Marème Mbodj laa tudd maa mooy ce qui se passe réalité bi bu ñu bu ñu voiler la face bu ñu naxante que ni la xewoon 2012 moo ñëw 2022 23 xale yi ci boppam ñoo changé de camp te ñoo yore àdduna ñooy diriger àdduna ñooy décider te lii lañ décider kon ku bëgg jàmm da nga ànd ak ñoom xool noo leen di accompagner mais boo nee leen du ci dalit musiba mooy ñëw dañu nekk ci débat moo tax ñu génne ay preuve teg nga baal ma. ma ne Bintu euh, aji Sarr ba mu génne kilotom boobu di fecc xaw ma image bu reel la xaw ma réelul xaw mais yooyu yow xale bu jigéen nga ne dañ laa sàkku nga génn ak sa kilote yaay mel ni ni la sa ndey juree woon mais mais ñii ku ñu yàpp lii bañ ko war a stoppé dafay yàgg dañ waxante dëgg. ah ay ojo génn fi gis nga li la daal moo ma daal man dama ni woon affaire politique ak APR ak yii sax duma ci duggati man gëj naa ci panel bi di dugg mais dafa am loo xam ne bu ñu voilé la fas dëgg bi naan ko wax dooleel nañ ko tëgg nañ seen dil foire na waaw nañu may suñu jàmm góoru Sénégal zigzag moom du ñëpp de ndax bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër mais looloo fa am. ña ngay foowee xale yi ña ngay def lu leen neex waaye léegi nag nga jël benn leader politique topp ko ni danga koy sexal jigéen ah, mais def ko mu set dañu dañu doon dil na dil bi set dil bi nag setul bu ñu sonal nit ñi bu ñu sonal nit ñi rapport médical buy wane ni séq gis nga euh, Sitor Ndour mais ñu téye parce que rapport am dafa tegu ci yoon fekk nañu mën ni yoom ci kaw xale bi gis nañ ñu pénétré nañ xale bi gis nañu xale bi këram la jógee loolu kenn mënu si dara waaye Adji Sarr mu dajee Sonko ca Sweet Beauté génn nañ tëgg seen dil waaye ku ñu violé yow léegi gouvernement yónnee oto ñu jël si la dugal la ci 4x4 ma defoon ku ñu violé da nga naan génn di daw nekk ci mbedd mi di jël taxi ak yuuxu dëkkandoo yi génn mais arrêtons am na loo xam ne amul sens nañu xaar Sonko ci beneen ruq mais bu Adji Sarr bii. maa leen ko wax lu ma fi mës a wax rek ñun teg nañ ci bët duma ma yàlla du ma yonent xaw ma dara waaye Sonko bu duggee kaso dëkk bi tàkk si ce que Macky nag na ko def su ñu bëggee sotti galaas da ci sotti galaas dossier yi mu bëgg seddal yëpp seddal na ko na ci def bu aji Sarr bii waaw na rapport médical bi génn ñu wane ni y a pas pénétration 48 heures yooyu ñu baal ma ci kàddu gi parce que le chat il faut l'appeler le chat sëyu ñu aji saar sëyul ci ñaari fan yooyu ñu tuumaal sonko kon lan la cooli lan la léegi lan la daf ko gajj daf ko xuri da koo jam da koo rey mais nit ñi ñi ngi leen di rey te dëkk bi tàkkul kon buñ ñu sonal ci góor ak jigéen ju ànd jàmm seen daqaar